ci Pikine kër euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, Ndiaye TFM mu bàyyi ko fii donc mu nekk naqar boo xam ne si ni naqar bu tiis la dal ci kaw Sénégal dal ci kaw TFM waaye dal ci kaw artistes yëpp rawatina comédiens yi ñu ngi taxaw ak euh, ki nga xamante ni moom moo di tonton Tafa ñu fekk ko fii moom aussi ñu bëggoon ko laaj rek ban yëg-yëg la am ci naqar bu tiis bi nga xamante ni dal na ci kaw Sénégal. waaw ah, ñu ngi nuyu Sénégal gépp di ko jaale Sénégal gépp di wax inna lillahi wa inna ilayhi ñu koy jàllee képp koo xamante ne daal doomu aadama nga ci Sénégal ak àdduna bi parce que njaay njaayu Sénégal la njaayu àdduna bi yëpp la waaw. ba rapport nga amoon ak euh, njaay rapport yoo xam ne si euh, nit ak nit. moom rapport bi mu amoon ak ñëpp rek xaritu ñëpp la parce que njaay moom bu taseek yow bëggul kenn mel njaay boo demee da ngay boo bu fekkee doon nit sax da ngay dem benn saa nga ne kii dafa soof. parce que tey bu ñu tasewoon ci milieu bi mooy comédie mooy reetaan mooy way mooy lépp lay def donc pour bañ kenn frustré wu donc bu nekkoon nit bu baax nit boo xam ne nit bu am diine la parce que jaay nit la boo xam ne yàlla moo ko may xam parce que kullu xam na ko da koy jàng suñ tasee loolu lay def bu laalee murit laal tijaan laal laayeen laal sax bay laal ba laal catholique kon mu nekkoon nit boo xam ne yàlla nit bi du yàlla mayoon la waaw. lan moo la gën a marqué ci jaay. jaay ah man li ma gën a marqué nag moom mooy saa ñu tasee nim ñu reetaan loo ba pare man saa yu ñu tase rek wayu Cheikh Tidiane la may wayal waaw xam nga ne man bi laa donc loolu la nii loolu la nii nigoo moom bu ñu toll woon fële mu seen ma rek loolu lay yuuxu donc nit bu baax la daal. kañ ngeen gëj a gisante. Njaay ci koor gi ñun ñoo dem rek defal ko benn surprise dem def ndogu këram man père bu xar Moussa Diallo ak euh, sunu beneen waay boo xam traiteur la Ndoye dem def. këram ndogu boobu lañ ko mujjee man boobu laa ko mujjee gis. boobu mi ngi tëdd ci feebar. mi ngi feebar mais soo koy woo téléphone doo xam ne dafa feebar. mais soo la benn maye <laughs> waaw. soo ñëwee ni ko nan def ay démarches pour feebar bi biñ demee dañ bëggoon jël ay ordonnance dem pour jéem a def benn démarche pour feebar mu bañ. donc nanguloon kenn ku koy. jàppale ñaanal ndimbal ki mel noonu comme ni ñu koy defee jamono ji déedéet ñaanul kenn ndimbal après ci la per jël téléphone am envoyé ordonnance yi waa TFM ñu ngi ko waroon opéré samedi ñun ñu ngi fa dem pare mardi. après samedi boobu lañ ko yóbbu hôpital euh, clinique bi mu gaañoo nii pour ñu opéré ko mm. waaw. ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di jaajëfal te di ko jaale Sénégal gi yëpp waaw.